waaw man Abdou Khader Gaye laa tudd dëkk Loda Gendar waa xam nga lii dafa nekk loo xam ni lu am solo la si Ndar rawatina Gendar ndax cosaan la boo xam ni sunu ay maamaati maam noo ko daan def mu nekk nag po po mu am solo boo xam ni diggante dàkk ak Kondo xolé ak e ñetti parti yooyu nag daanaka ben lanu na fo duggu rek am nga fa mam wala nga am fa soxna am fa dom e yalla dogal nak mu nek sunu powum ciosan ñu ci sante yalla bu baax parce que tam sunu ay papa ak sunu ay mam, dañ ko daan joxalante ba tay mu ñew ci ñun gis nga heure bi ngeen fekk no soop gaal yi nekk na heure boo xam ni moment bu difficile la dafa mel na match de football arbitre bi te seex liit gi di joxe coup d'envoi gis nga yëg-yëg boobu joueur yi di am tey moom la mool yi di yëg si xeer gi. non ku la man wax ñaata at la waxuloo la exact ndax rawante gaal kenn xamul kañ la commencé dafa nekk po mu yàgg po mu yàgg ñi nga xam wax nañ ni po mu yàgg yàgg la. ah li des mooy jongante xam nga jongante nag moom. dafa am gagnant am perdant ñun nag noo ngee ñaan yàlla yàlla mi dërëtewul yàlla na nu jox ndam te ndam li sedd guy mu jig dëkk bi ah man de wax dëgg yàlla sama xel dal na ndax bi ma nattee manuma woon wax si fan yii waaye bi nu soobee gaal ba mu xool gaal yi wax dëgg yàlla am naa yaakaar jaam nag yaakaar rek la am yàlla nag moo amee lépp waaye ñoo ngi wax ni lépp lu nu yàlla sédd rek daanu ko nangu nangu bu rafet ndax jullit manul lu dul nangu dogal sunu borom jërëjëf merci mané ne nu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan yalla rawante bi nga xamanteni mom moom jublu yalla dess si amin ndax gendar ben bop la loolu gendar la pondu gendar la dak gendar la rawante bi ñun noko bok képp ko xamanteni am nga ndam génn nga ko jëmis do doo ko wàcce pont bu bu pondu gañee gendar la jëm bu dak gañee gendar la jëm bu loolu gañee gendar la jëm ñun nak ay loolu loolu noonu. daanaka suñu carrière yëpp si gaal yi nañ ko def moom na xam dañu juddu ñëw fekk suñu maam yi nekk sunu suñu papa yi nekk si ba tey nu jël sunu carrière def ko si ba tey noo si fin de carrière ñu ñaan yàlla yàlla mi nga xamante ni moo yor ndam yàlla na jox ndamul seddu guy nu raw gaal raw bu leer nañ boo xamante ni kenn du am loo see discuter ndax loolu mooy sunu objectif ndax rawante yëpp noo ngi échec ñun bi rawante commencé ak léegi. benn premier nañ fi amagum boo am premier bu neex na loolu neexul dañu bëgg nu am premier ju leer nañ jël ñetti premier yëpp. yàlla may jox ndam yàlla na ko jox si dërëjëf seeru Cheikh Sarr yàlla nu Cheikh Sarr bu teeru taxaw nu am dam lu leer nañ nañ nañ yàlla may am ndam yàlla na ko jox ñu ngi ziar ñëpp nag di gërëm ñëpp dañaa yaam def si jàmm loolu mooy objectif bi gën a baax moom mu rek jàmm jàmm la paix ñëpp am fair play bu baax a baax ñu ziar ñëpp jaajëf Pape Silman laa tudd waaw Iba Dieye mooy sama papa Asfal mooy sama yaay man loora loora pire la cent pour cent loora sama papa loora sama yaay loora o oh, kontaan naa trop quoi ndax ma ne El Hadji parti bii bi ma si nekkee lee ma am ñaar fukki at yu teg waaye dama ne ñun ñoo bokk ndey bokk baay bokk maam loola ak dàkk ak pollu xole ñoo bokk benn maam pol xole gi am na lu ñu jëkk a dàkk di jooyu pollu xole am ñu dëkk loola lu joowu pondu xool pondu xool it am na ñu dëkk fii di joowi dàkk am ñu dëkk fii di joowi loolu ndax maam i benn la moo tax ñuy ñaan yàlla ak yonent bi pa lii ñu dugg yàlla nañ dugg jàmm mu teel ak jàmm loolu rek lu ñuy ñaan jàmm rek lu ñuy ñaan ndax ñi ñoo bokk benn maam fi mu ne bu ñu jógee dex ga ba songu ba sol yére yi ñoom ñëpp ñooy daje si secteur bi secteur secteur pël xoole secteur u dakk ñett secteur yëpp ñoo fay bokk daje ba moo tax daal lii dinañ ñaan yàlla yàlla na ko yàlla àggale si jàmm ñi nga xam ni nag ñoo yor parti bi ñoo ngi nee si ginnaaw kii Amath Samb mi lax na gaal pël xoole lu man trois ans moom mii taxaw Amath Samba Dieng ba moo tax daal ñun kontaan nañu bég nañu yéen it di ñaan yàlla seen organisation bi yàlla ko yàlla yokk jëmale ko kanam man El Hadj Ndiak Mbaye ah di bay fa pondu xoole maa sànni kàddu yooyu ci rawante gaal yi wasalaam. waaw man la man la Abdou mu Diop maa ngi bokk Pont Doxolé bon soob nañ suñu gaale ba pare itam bon am nañ si yaakaar bu rëy ni rawante bi ban daan si dugg si jàmm génn si jàmm bon comme ni euh, fi mu daan jaar rek wala man naka daan def suñu ay xaleel bon tàggat nañ leen ñaax nañ leen pour itam bon mbir mi nu kii ko si jàmm ndax itam bon dëkk bi benn quartier la ñun ñëpp noo ko bokk te itam bon bu victoire amee amul benn kër gooy dugg te doo fa gis victoire wala défaite kon itam bo dekk bi nu noko bok kon itam bo nanu wax jàmm yéenante jàmm itam bo mbir mi nu def ko si jamma mu téré si jamma te itam bon bu sobe yalla xam na bo bon sunu gal yi nu yore ni xam na bon daan si def suñu lay katan daanu def lu nu wara def ma daanu wax li nu daanu jaar fi nu wara jaar itam bon nu wax kenn lu bon wala lu ñaaw da itam bon bu nu paré nu noy andat waaw fi manam kat da ngay bok ci ben ben groupe maanaam waa lakk waa dàkk waa looda ñëpp si bokk kon itam boo mbir mi jàmm kese moo si mën a am te itam boo nun loolu lañ bëgg te itam bon loolu nañ si ñaan noo ñaan daal képp ku jéglu message bi ak foo man nekk bon nga lax sa xel ni nun nun bëggunu violence xam nga nun jàmm kese nu ñu woote te itam loolu moom nun bëgg waaw na ñëpp na na fekk fekk suñu loolu bon nu nu kii su loolu daal Sénégal dem kanam loolu daal lu bëgg soobee yàlla